jigéen ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum ndimbalante ak lépp lu jëm ci suqaliku di prospérité euh, naka ngay hmm, xanaa di am yaakaar ci li ma def rek yàlla nañu yàlla defal mu su gën ñu suqali daal gën a avancer sunu association bi daal loolu laa si xalaat. Hmm. Hmm. xanaa ñëpp ñëw jàpp ci rek ñu jaay carte yi ñëw bokk liggéey liggéey bi avancé ma daal loolu laa leen laa leen di xaañ ñaax waaw. voilà bi sànq ni euh, naka nga naka nga dëgg merci beaucoup d' abord di leen remercier bu baax euh, ci seen disponibilité alors di wax ni rek tey jii convention bi ñu signé ak waa AFEP muy association des femmes pour l' entraide et la prospérité euh, lenn la loo xam ne ci lu ñuy participer la ci développement localu suñu dëkk. te aussi tamit damay wax ne rek tamit bi benn convention la boo xam ne dañ ko accès ci ay aspects yu bëri muy formation beeg ci wàllum assistance beeg ci wàllu aussi gunge côté entrepreneuriat ci seen projet personnel ba lépp lu ñu sumb rek ñun ñu accompagner leen ba mu mujj doon réussir daal loolu daal ñu ngi koy remercier bu baax di woo ñëpp ne leen nañ ñëw rejoindre jàpp si pour ñu ànd liggéey pour participer ci suñu développement dëkk merci beaucoup. ba ñuy sant yàlla pare si yonent bu tedd bi sant suñuy waajur. ah xanaa di ko rafetlu rek parce que dañu wax ni réew bu bëggee dem kanam il faut que ñi mettre les femmes devant et la jeunesse defe naa yooyu ñooy ñooy kéel réew te convention bi ñuy def tey ah xanaa di ko rafetlu rek parce que wan nañu yaa des jeunes yi nga xam te ne bi am nañu Pastef yëkkati lu tool ne jàpp si fekk ay jigéen yu mel ni ñun di daw ci développement pour leur pays a ah, ñu fas yéene ñu jàppale gunge ñu ah je crois que ne c'est bon bonne chose te yaakaar naa ne entreprise bu nekk loola ngay ñaan yàlla des des jeunes dynamiques yi nga xamante ni bii dinañu mën nekk sa gannaaw booster la ba yow sa entreprise jëm fa nga bëgg a jëm mu egg fa. te je crois que ñun ñii jigéen ñi ci loolu lañuy taxaw ndax booy seetlu chaque matin boo xëyee ci mbedd bi danga naan benn jigéen tëddul te bu ñu amee ay jeunes yu mel nii ñii ñëw jàppale ñu. ah dañ koy rafetlu rek di ñaan yàlla partenariat bi ñu signé tey yàlla na jëm kanam ba ku nekk gis ci sa bopp waaw loolu la ñuy ñaan ba ñi nga xam te ne bi ñi ngi nekk bitim réew li leen taxoon a dem ci biti ñu gis ko fii ba muy dellu waat ci biir réew mi waaw loolu daal la ñu doon ñaan bon tey ji moo fi nekkoon suñu taxawaay tey ji ah ñu di ko rafetlu daal di leen ñaanal yàlla fépp fi ñu bëgg egg daal yàlla nañu fi suñu borom yeggale ci barke yaa Rasuulullaah Clotilde Ditine secrétaire général AFEP muy Tawfekh ju